وجود وجه لمن تكريمه بانا في سار مولد من في البار ربانا فونكاب تي في تلا خادم رسول يا جارة الله sangu jigéen ñi ci dul yaa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 sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba ñu sante yàlla ñu maase julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi sant sayxuna ahmad al xadim qaadallahu lahu maxtaara lahu di ñaan yàlla ci kattanam ak darajaam ak sañ-sañam yàlla nañ fi bàyyil sëriñ tubaa sëriñ muntaxa yéene ji ay waajuram amoon magam yu baax yi am ko yàlla na sottal seeni naal ba sumb ay naalam te sottal ko te ñand ak mom te làq ci ngërëmal cheikhul khadim noné lañ koy ñaanalee ummahaatu muridine yëpp waye tay nak yàlla dafa dogal ñu ñëw ci télé fonkap TV waye ci njital jambar ju mag di geejju xam xam-xam di geyndek diine di mbégum tariqa l'islam yëpp te moy sëriñ mamour mbacké mom Cheikh murtada tay nak yàlla dogal na ñogi téw fi ci télé bobé di fi def waxtaan ci yóbbalu koo xam ne ab royukaay la ci mboolem réew mi muy soxna jaaratullahi Mariama Bousso kon ñoo ngi leen di ziar ñoo ngi leen di ndokkeel itam tey nag dañoo bëgg nafar mu néew ak mu bari dundug royukaay wu yaatoo yaatu di soxna jaaratullahi Mariama Bousso xam leen ne soxna jaara mooy waajuru cheikhul xadim waaye soxna jaara itam yàlla sun borom subhanahu wa taala da ko utaloon wàccuwaay wu rëy ndax wa isa arada allahu amran ayaha allahu asbaba ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dani kullu muyaasharun li ma xuliqa lahu maanaam nit ku nekk la yàlla namm ci moom da ko koy yombal kon lii moo tax bi soxna jaaratullahi maryaama buso doonee royukaay bu mag la ko sun borom tànnal waajur wu tedd wu góor muy sëriñ muhammadu buso ñu koy wax ma buso awa mbaay waye itam sun borom tan lon ko wajuru jigen wu tedd di ma astawalo radiyallahu taala anha xam leen ma astawalo mi wajuram dunduna temeri at ak fan wer ak jurom netti at kon ma astawalo wajuru soxna jaara jëm la jo xamne ne ab kay la ci mbolim jigen ñi ma astawalo itam kenn la ko xamne jangale katub alquran la won maa asawaalo itam boo ko masaana fekk mu toog wax nañ ni góor nga ko daan teg ndax ay jàllabe yu tal la daan sol maa asawaalo jàngal na soxna jaaratullahi mariama buso téereb xam-xam bu jafe-jafe bu ñuy wax dalaa ilul xayraat yi maa waa waajuram moo ko ko jàngal xam leen ne maa asawaalo itam ab jaamukatub yàlla la woon kon loolee sëriñ Mbay Jaxate doon wax ni baaxi mbokk moo di yóbbal waaye fax ak rawa des kenn gañewu ci soxna jaaratullahi maryaama busu ma asawaalo ci téeméeri atam ak juróom-ñetti atam muy 138 ans ci la maa asawaalo tàmbalee jàng tàmbalee naafila kaamilo alquran ba wax nañ ni moom maa asawaalo ci téeméeri atam ak juróom-ñetti atam wax nañ ni daan na fëgg guddi yi moom maa asawaalo bu masaana fëgg guddi yi itam kaamilo alquran soxna maa asawaalo waajuru soxna jaara wax nañ ni daan na ko xaaj juróom-ñetti rakka moom maa asawaalo daan ko naafila guddi gi doonoon soxna soo xam ne itam ko bari woon xam-xam la doonoon soxna soo xam ne itam jëmm la joo xam ne daan na jàngale alxuraan waaye daan na jàngale itam xam-xam kooku moo yar soxna jaara ci ay loxoom waaye soxna jaara itam wax nañ ne waajuramu jigéen sëriñ ma bu buso awa mbaay di waajuru soxna jaaratullaahi maryaama buso wax nañ ni moo ko jàngal ci juróomi atam wax nañ ci la soxna si dal alxuraan di soxna jaara waaye bi yàlla dogalee waajuram dalal ko ma buso awa mbaay mi waajuram moom soxna jaara wax nañ ni moo ko jàngal bam wattu alxuraan waaye dem ak moom itam ci xam-xam waaye ginnaaw ba itam wax nañ ni nijaayam ji wax tafsir mbàkki ndumbe doonoon ko bari woon xam-xam doonoon koo xam ne daan na tafsir alxuraan wax nañ ni itam jàngal na soxna jaara téere boobee ñu wax fiq ak tawhid ak yeneen téere ba wax nañ ni itam soxna jaaratullahi mariama buso tafsir na alquran ci tafsir mbàkki ndumbe moo mële kon soxna jaara xam leen ni itam bam jàngee alquran ba géeju ci mboolem xam-xam yi doomi soxna war a xam ci penkook sowu ci asamaan ak suuf soxna jaara peeg na ko wax nañ ni ci fukki atam ak juróom-ñaar am na ñu ne fukki atam ak juróom-ñett kon soxna jaara ku teel a géeju ci xam-xam la waaye xam leen ni itam soxna jaara bi mu wattoo alxuraan nii ko ñu ko baaxoo defee tey boo demee poroxaan noonee soxna yu baax ya fa nekk ñu leen di yar di leen jàngal alxuraan bañ mokkal ba bind wax nañ ñu soxna jaara itam bind na ay kaamil yu baree bari gannaaw bi ko waa waajuram woowee ma bu sa awa mbaay jàngalee ba mu wattu alxuraan kon soxna jaara bi mu wattoo ba jàng ba bind teewul itam da wëlbatiku di jàngale waye soxna Jaara mi nga gane adina ci atum 1833 waye wax nañ ni nga gane aduna gollere moy ciosanu soxna si wax nañ ni askanam boko topé ma nga dayu ci sayidina hasan domi sayidina ali mom mi nga xamne Fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam moy wajuramu jigen kon soxna Jaara bo topé ak càllalaam sërif la soxna jaara buso moomu nga xam ne yàlla dogal na sërif la ci wàllu kër ndey waaye sërif la itam ci wàllu kër baay moom soxna jaaratulaahi maryaama buso ndax askanam boo ko toppee dayu na ci seydina asan doomi seydina alin karamallahu waaye xam leen soxna jaara itam bi jàngee ba mokkal teewul da daan jàngale soxna jaara jàngal nañu bari alxuraan waaye soxna jaara itam jàngal nañu bari xam-xam kon soxla la soo xam ne diir bi muy jàngale mi ngi not ay bakkan mi ngi not bakkanam di tàggat bakkanam ci jaamu yàlla waaye di tërbiya bakkanam moom soxna jaaratulaahi ba àgg ci garaatub jaaratulaahi soxna jaara maryaama bu su la tudd waaye àgg na ci diggam ak boroomam ci jaamu yàlla ci foggu di di naafila di tàggat bakkanam ci boroomam ba yàlla may ko garaatub jaaratulaahi kon soxna soo xam ne agon na ci jaamu yàlla ba dëkkoon ak yàlla burbi subhanahu wa taala bañ koy wowe jaratullah mom soxna maryam buso wajuru cheikhul khadim waye xam leen ni soxna jara wajuram moko yar waye ma sawaalu mi xam leen ni boko topé itam càll loona ci yonnati bi alayhi salatu wassalam kon soxna jara manisna wax ni sërif la ci walu kër nday waye sërif la itam mom soxna jara ci walu kër bay maa sawaalu nga moy wajurum xam leen ne jamono jooje nga xamné mabba ma ngay xex ca salum te bindon ay barawatu ay letter yonne ko mbolé magni xamal leen ne ñëw leen ngeen jàppale ma ci jihad gi may def ci l'islam ndax képp ko xamné man nga ñëw te do ñëw bés bo fekk won xare Badar do jàppale sayyiduna Muhammad wax nañ ni fekk na soxna ma asawala mage lol waaye da gaday ànd ak mag di laxas ngir dem poroxan wax nañ ni bi mu egg si radiyallahu taala anha fala tawatee ba mujj fal noppaloo ñu daal di ko fay denc radiyallahu taala anha moom ma moom ma asawaalo waajur soxna jaara doonoon na soxna soo xam ne itam dund na at yu bare bari xam leen ne téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñetti at muy moom la ma asawaalo waajur soxna jaaratullahi mariama buso dund kon boo ko comparé dund soxna si xam leen ne lu tuuti la ndax fanweeri at ak ñett wax nañu soxna jaara moom la dund may faral di wax samay wax lu bare bari ndekete gudd fan ak gàtt fan amul solo ndekete gudd fan ak gàtt fan mi ngi takke ci kemtulaayu bi nga ganee jamono ba xam ne yàlla da laa bind ngir nga jaamu ko nga jël sa dund jox ko yàlla kookee ku gudd fan la misaal mi ma ciy joxe mooy bari waa na ñoo xam ne tey yàlla dogal na li soxna si dund ah ñëw ko ëppale ak dund fuuf waaye keroog bañ wàccee liggéey lañ leen fàtte kon boo imaginer fanweeri at ak ñett yi soxna jaaratulaahi mariyaama bu su dund xam leen ne kon dund gu néew la waaye jamono ju nekk saa boo tuddee soxna si mel ni tey la fi soxna si bàyyi ko kon gudd fan ak gàtt fan mi ngi takkee ci kemtulaayu li jaam bi jox boromam ndax koo xam ne 1866 nga fi bàyyi ko ba jamono jii ñu toog di waxtaane waat soxna su baax soo sële te saa boo tuddee soxna jaara mel ni tey la fi bàyyi ko kon jëloon na ak dundam radiyallahu taala anha jox ko boromam kon waajuram moo ko jàngal ñu yar ko kon loolee Serigne Saliou daan wax ni ndaw da koy jàngal yar ko yee ko loolu feeñ ci dunduk soxna jaara ndax diggante waajuram wu góor ak diggante waajuram wu jigéen ak nijaayam ci la soxna jaara doon jànge ba làq mbooleem alquran dëddu ko wan ko ginaa bindu ko moom soxna si jàng xam-xam ba daan ko jàngale kon loolee sun borom di wax ni nit ñi binduma leen lu dul ñu may jaamu waaye sàkku xam-xam itam war na ab jaam ci sa dund talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslima kon sàkku xam-xam war na góor war na jigéen kenn gañewu ci soxna jaaratulahi waajuru seexul xadiim kon bi ko waajuram yaree ci loxoom yu sell yoo yële di maa kon bim koyare ko yere ba jangal ko bam mu rir réer not ba bakkanam ci jaamu yalla ndax soxna jaara dan na fëgg di jaamu yalla bu suuf defan ba sedd gis nañu soxna jaara dan na gàdday néegi lal lal ah, basangam dëgmal boromam ba fajar xar kon guddi yep soxna jaara da ko daan fekk radiyallahu taala anha dan ko jaamu boromam xam leen ni bi nga ko ya-, wajuram yare bañ ko ne dañ lay yóbbu kër noonee mag ñu baax ña daan dajale seen mbokk buñ ko daan yóbbu kër waaye xam leen ni Maam Mor Anta Sali daa dëkkoo woon ak soxna yu baax muy soxna Anta Jaxate rakki xaalima jaxate kala soxna Asta Jaxate doonoon rakki xaalima jaxate kala wax nañ ni dikkam ci kër sëriñ Mor Anta Sali wax nañ ni mi ngi sababoo ci soxna Anta Ndiaye Mbacke di waajuru maam Cheikh Anta borom gaawaan xam leen ni xam leen ni Maam Mor Anta Sali jàngale katub alxuraan la woon waaye xam leen ne diir bi muy jàngale ba daara ji tàmbalee yokk donga yi tàmbalee yokk liggéey kër gi tàmbalee diis daa diisoog sëriñ moor moom soxna Anta Ndiaye Mbacke lan la ko wax tee nga maa may ndigal ma uti soxna soo xam ne danaa ko jël indi ko ci kër gi mu jàppale la ci liggéey bi waaye lan la ko sëriñ moor wax da ko ne Anta Ndiaye mu ne ko Mbacke mu ne ko man day yoruma lu may takkee soxna wax nañ ni jamono jii jamono Joje, wax nañ ni da jëlone ay ganjaram daal koy jaay jël njëg gu sell ga jox ko sëriñ ngir mu jël soxna jaara indi ko ci biir kërëm kon lolé dañ cey jàngee ne jigen yag na gis soxna su bax jël ko andil ko borom kërëm ngir sakku ci itam njaboot gu bax kon noné la yombé won soxna yu bax yu yele ngir lepp luñ daan def yalla sun borom subhanahu wa taala kep mo daan tax waaye xam leen ni bi mu jaayee ay takkaayam daa jël njëgg a jox ko Serigne Mor kon dikku soxna jaara ci kër Serigne Mor Anta Sali wax nañ ne kon mi ngi sababoo ci soxna Anta Ndiaye Mbacke di waajuru maam Cheikh Anta borom gaawaan bi yàlla dogalee ñu jox ko ndigal ngir mu dem wax nañ ni bi mu ñëwee Jolof diisoog soxna diisoog ma sawaalo da ko man day soxna si laa bëggoon a jël mu dem kër waaye lan la ko wax yow day soxna si sarak la mënoon nga ko jël te dooma ko laaj noné la magña benné won kon soxna Anta ndjay ma asawala wajur soxna jaara wax nañu moko jangal alquran bi yalla dogalé ñu wajal ko ngir mu dem kër ci fukki at ak ñent ci sunu nopp wax nañu ci lañ wajalé soxna jaara ngir yebbaliko serigne Mor Anta Sali xam leen ni li ñuy def ngir wajal jigen diko ñaax jël ay mag itam ñu diko jajj diko ñaax ngir fam jëm man gor lu jaamu fa yalla sakku fa njabot gu bax noné lañ doon wajalé soxna jaaratulaahi Mariama Busu manam ci misal moy ñong koy ñaax di bayilo xel ay mbokam yo xamné barab yeñ leen yóbbu won dañ fa doon jaamu yalla ba sun borom may leen fa njabot gu bax waaye noné ñukoy ñaaxé soxna si rongañam mi ngi dal ci dëndum ñu laaj ko lan mo sabab say joy xana da nga ragal fa ga jëm mu man day da ngeen maa ñaax waaye damaa jox sama listixaar sama borom waaye bi ma listixaarloo sun borom damaa yem damaa ubbi kaamil bi yam ci laay joojee sun borom di wax ni xam leen ne ab yonent dootul wàcc ginnaaw Seyduna Muhammad looloo waral samay rongañ dal ci sama dënn waaye bu dutoon loola ma mën a waat ni su ma demee ba kër Sëriñ Moor danaa fa sëy ba jur fab jant waaye ndéem loolu faat na ndéem jur fab yonenti faat na kon ma mën a wax ne su ma demee danaa fa sëy ba jur fa lumbu asamaan euh, ak ak weer asamaan ak weer keroog loolu la soxna jaara Mariama bu so wax bi yàlla dogalee nag ñu waajal ko jëlee ko jolof jëm seeg moom mbakki diggante boobee diggante bu gudd la boo xam ne distance bi sori na te booba xam ngeen ni ay oto amul booba mag ña dañ daan war waaye bi yàlla dogalee ñu waral ko jëlee ko jolof jëm seeg moom Mbàkke ñu topp fas wi waral ko mu jëm si Mbàkke wax nañ ne fas wi daa dox ba mu yàgg daa di tërëf waxtu gee wax nañ bi fas wi tërëfee daa daanu wax nañ ne soxna si itam wàcc fas wi bi soxna si wàccee fas wi ñu waralaat ko ngir mu dem soxna jaara dani tee ngeen maa may ma julligee loolu la soxna si wax may leen ma ma julligee wax nañ ne biñ ko mayee mu julligee ba noppi dañ koo waralaat moom soxna jaaratullahi ngir jëm ak moom Mbàkke waye xam leen ni Serigne Touba ku doy war la dafa ma sa wax ni ba jëlé sama wajur wa jolof diko jëm ci mbacké fas dox bam yag teureuf Serigne Touba neena la daaneel fas Serigne Touba neena ci man la. ngir bu fas teureuf ton wàcc soxna ci du wàcc julli te bu soxna jaara wacc ton julli man cheikhul khadim duma ñëw jamono ba xettali jaam ñi ndax duma jaare ci soxna so xamne day faad rakka lolé day wane dimension bi nga xamne Serigne Touba amoon na ko ci boromam waaye da nga ciy itam dimension bi nga xam ne soxna jaaratullahi Mariama Bousso am ko itam ci diggam ak boromam. xam leen itam bañ ko ndee Mbàkke jébbal ko Serigne Mor soxna jaara ba mu ñëwee ñam fa fekk jàppeewuloon ay wujju mooy lii xew ci jamono ji nga xam ne ju ñëw kër ña fa fekk ñu jiitu la fa da nga leen ay wujju waroo leen a ay wujju waaye da nga leen def ay royuwaay def leen ay waajur loolee jëpp jigéen du ma ne jigéenu murit rek waaye damay wax ni bépp jigéen boo xam ne yàlla dogal na yaa ngi tuddoo ab jullit rawante nag ab murit war ngaa roy ji koy tedd yoo yële ci soxna jaaratulaahi Mariama Busu kon ba mu ñëwee jàppee wu leen ay wujju waaye ba mu ñëwee da jàppee ay wayjur moom soxna jaara daan leen bàyyi xel daan leen liggéeyal daan taxaw ci seeni itte daan leen doxal itam ci seeni soxla waaye bañ nekkee mbàkkeeb diir bu gàtt ca la sëriñ Mor Anta Sali daa di laxasee daa di ñëw dëkk bu ñax nja njakan mi ngi ci boori mbàkke bawal waaye diir bu gàtt lafa fa sëriñ Mor Anta Sali def daa di fay jóge nag daa di ñëw xuru mbàkke xam leen ne xuru mbàkke barab la boo xam ne fa la soxna jaara nekk lu bare bari sàkket woowee mbokki taalibe yëpp daan dégg mu doonoon xiin gu xiin gu yéeme di xiin goo xam ne itam wax nañ ne daa àndoon ak ay ngelaw ak ay dënnu waaye sëriñ moor ante Sali bi mu génnee fekk sàkket wi jàng wax nañ ne daa woo soxna si ne ko téye nga maa téyel moo uti lu ma gege ne sàkket wi noone yàlla dogal soxna si téyel ko ko ah sëriñ Mor daa di jug nag daa di fatu waaye bi mu fatoo fàtte soxna si waaye soxna si mënoon naa bàyyi sàkket wi ngir bu ko bàyyee it sëriñ Mor du ko ci yedd waaye bàyyiwu ko daa fanaan ci mbedd mi téye sàkket wi mooy taw ci kawam di dënnu ci kawam di ngelaw ci kawam ba bët naka la sëriñ moor génn yam ci moom ne ko lu waral lii mu ne ko yaa ma joxoon ndigalu naa téye sàkket wi te joxo góoma itam ndigalu bay lan nga cay déggee kon jigéen ju nekk war naa mën a déggal borom këram ci déggin woo xam ne day jéggi dayoo ndax bu ko bàyyi woon moom soxna si dugg ci biir sëriñ Mor du ko ci yedd waaye ndigalu sàkket wi mooy téye ko te waxu ko itam ndigalu bàyyi looloo waral sëriñ soxna jaaratullahi téye sàkket wa waaye wax nañ ni bés boo bale sëriñ Mor Anta Sali bég na ci moom mbégte mu rëy waaye xam leen ni itam soxna jaara amut ak sëriñ Mor Anta Sali cheikhul xadim képp yàlla dogal na am naag moom ñetti leer muy ñetti ñu góor ak kenn ku jigéen xam leen sëriñ Mamor Jaara magi mag mooy taaw soxna Jaaratulaahi Mariama Buso yàlla dogal na Serigne Mor Anta Sali rek sëriñ moor Jaara bu ñu yemoon ci moom waxtaan ci ay jagleem waxtaan ci ay xar baaxam yi ko sun boroom jox daana ko doy ne sëkk sëriñ Touba waxoon na ci moom ne Serigne Mor Jaara jëmm la joo xam ne ku ko liggéeyal yàlla dalay fay yonent bi fay la sëriñ Mor fay la man Cheikhul Khadim ma fay la boppam wax nañ ni kaamilu alquran juróom benn fukki sib wax nañ ni sëriñ moor Jaara magi mag wax nañ ne dan nako raka ci ñaari rakka waxtu guddi gu jot ba wax nañ ni bi mu wi boromam mom Serigne Mor jaara magi mag wax nañ ci ruko ci le Serigne Mor jaara boromam radiyallahu taala anha koku soxna Jaaratullahi maryam buso moy wajuram xam leen ne am nak mom ku ñu wax Serigne Abibulahi Serigne Abibulahi wax nañ ni bañi nek nekk xuru mbacke fofé la gané jamono fofé fa la nekk ba wax nañ ni itam fala wàcc ligey ñu denc ko fa bo deme tay barabam ma nga ci xuru mbacke mom Serigne Abibulahi radiyallahu taala anhu waye xam leen ni itam amna amna ak mom ku ñuy wax soxna Fatimata Bintu mbacke yàlla dogal na ñaari xawaari xam na ci amna ñu ne wax nañ ni dañ ko keuf ndax jamono jojé naari dañ dan keufati di yóbbu amna ñu ne itam yàlla dogal na da téla dem amana lu mëna am amna ak mom soxna fatima Bintu bakke kon am nak mom ñet ñu góor way kenn ku jigen way ki nga xamne nak nag Cheikhul Khadim kookee bi ñewé le ub làmb jep mom Cheikhul Khadim xam leen soxna jaara yag na xuru Mbakke lol xuru Mbakke doon barab bo xamne tay bo deme dañ lay wax ni teen bi la soxna lahi maryama Buso daan rote barab bi itam la dëkkoon way fi itam la daan taxane boo demee xuru Mbàkke tey dañ la koy wan kon lan laa bëgg a wax ni kon manees naa wax ni barab bi soxna si gën a yàgg mooy xuru Mbàkke bi yàlla dogalee ñu nekk xuru Mbàkke nag diir boobee soxna jaara toppin na fa sëriñ moor toppin woo xam ne dégg guñ ci àdduna wala ñu dégg ci taarix jigéen joo xam ne topp na ko borom këram misaal mi ma ciy joxe mooy soxna jaara wax nañ ni daan na toggal borom këram laaxu fajar bi yàlla dogalee bés mu di ko toggal sëriñ moor xëy di ko tàggu waaye bi mu koy tàggu ngir dem soxna si da ko ne tee ngaa xaar laax bi mu ne ko déedéet dama lay bañ a sonal loolu la ko wax waaye diir boobee muy waaj soxna jaara togg na ci ab laax waaye bi mu toggee laax bi ba sëriñ moor fekk ko muy war fas wi soxna si daa dëpp jël takkaayam takk ko boolub laax bi topp ci ginnaaw fas yi wax nañ ni diirub xuru Mbàkke ba diir ba dëkk Serigne Mor di dem wax nañ ni mat na juróomi kilomètre wax nañ ni soxna jaara daa topp ci ginnaaw fas wi ba ñu dalal Serigne Mor soxna si doog a fëgg daa di dugg niyoo daa di ne ko lan moo tee bi nga jubee fas wi waxoo ma ma wàcc mu ne ko loolu du ay teggin waaye imagine leen mbokk yi su doon jamono jii jigéen ñi nga xam ne wax nañ ni soxna jaara la ñuy roy kon lan moo sabab mënuñoo roy jikkoy tedd yii ci soxna jaara su doon jamono ji buñ la jollu mbeeree saw yoon sax mën nga cee yebbi waaye koo xam ne bi nga jubee sa borom kër du teggin nga ne ko xaaral ndeem laax bi sotti na kon da ngaa topp ci ginnaawam dox juróomi kilomètre bañu ñu dalal ko nga doog a fëgg nuyoog moom yëkkati laax bi jox ko moo tax sëriñ moor ne ko lu tee nga ni ma wàccal xéewalu mu ne ko du ay teggin keroog sëriñ moor bég na ci soxna jaara mbégte moo xam ne mbégte mu reey reey la kon lolé jigen ju nek war na ko meuna bàyyi xel roy ko itam ci soxna jaar misal mi moy ñaare lu tomb bi moy xam le ni itam amna bés sëriñ mor di ko togg lob laax wax nañ ni boba dafa taw ba sëbét matt jafe lol wax nañ ni tay li jigen ñi di ndamo muy armoal bu ser jamono jojé gal moko ko wecc wax nañ ni kérok soxna jaaratu jaaratullaahi maryaama buso da xar ay galam def ko mat xambalé ko borom kërëm defal ko ko kafe kon lolé jigen ju nek war nga ci mëna royat royaat soxna jaaratulaahi ci top borom kërëm motax tax bi alayhi salatu wassalam da waxon ni suma don digël kenn muy sujotal kenn jigen lay digël mu sujotal borom kërëm ngir àq yi daje ci mom dafa bari kon àq yu ñu tollu wala àq yu ko wessu buñ ko mënon wessu waxnañ ni soxna jaaratulaahi Mariama Bousso topon nako borom kërëm di Serigne Mor Anta seli bi yàlla dogalé ñu nek xuru mbacké noné ñu fa nekké rek ba yàlla dogal Mabba tambalé jihad ca ñoro ca salum bi yàlla dogalé loolu am Mabba bindina na ay leetar yonne ko mam Balla Aysa mi nga xamné moy mami Cheikhul Khadim wax nañ ni bobé magla ndax dundon na juroom ñeen fukkat kon bobay magla waye da jël leetar ba jox ko Serigne Mor Anta seli ne ko mën ngeen am ndigal ngir dem ñooro jàppale Maba ci xeex ba bi yàlla dogalee loolu am xam leen ne keroog lañu ñu laxas nag daal di ñëw ñooro waaye bi yàlla dogalee ñu ñëw Nioro itam xam leen ne la ca xew bari na lool bi yàlla dogalee ñëw si Nioro keroog xam leen ne Serigne Mor dani Maba faaw nga may ma ndigal ma dànd la lu mat daanaka juróom-ñetti keroog la Serigne Mor Anta Sali daal di dem nag. fi ñuy wax poroxaan diggante ñoro ak poroxaan wax nañ ni juroom ñetti ah, juroom ñetti kilomètre la muy 8 kilomètre wala juroom ñeenti kilomètre diggante bobé ci la ah, mamour Anta Sali wajur Cheikhul Khadim radiyallahu taala anha ah, newon وجاد wajil man tagrimuhu bana fi سار مولد man fil البار rabbana فونكاب tv te la xaadimu rasul kon soxna jaara mooy waajuru cheikhul xadim waaye soxna jaara itam sëriñ Tuubaa nee na ku mënoon a nëbb secret la kon soxna jaara nëbbaloon na cheikhul xadim secret yu yaatoo yaatu moom soxna jaara wax na ni ci ak ndawam su ko masaana féetale ginnaaw mooy mu boot ko ci sunuy nopp dëgmal ay yitte wax nañ ni mbedd moomee bu fekkee ay niti caaxaanati nekk wax nañ ni Serigne Touba Khadim Rasoul daan na gàntal ci ginnaaw soxna si ba mu xam ne mbedd mii la bëggul soxna si jaar ci demoon na itam ba soxna jaara daal di miinoon loolee ci Cheikhul Khadim waaye xam leen ne soxna jaara itam jëmm la joo xam ne ëmbaloon na Serigne Touba ëmbal goo xam ne nëbbal lu baree bari ci wàllu xar baax mi ma ciy joxe yalla leg leg buur la boo xam ne moom bi subhanahu wa taala léeg-léeg mu jël dara dëxëñ ko ci ci doom maanaam léeg-léeg jigéen am doom mu judduwaale ay bëñ wala mu judduwaale dara loolee jublug yàlla la goo xam ne daam lu mu dëxëñ ci moom waaye léeg-léeg ñu tiitaroo ko wala ñu feeñal ko te waxtu wa ko sun borom bëgg mu feeñ yàlla dogal na du waxtu woo wële kon mbooleem xar baaxi sëriñ tubaa amee woon ci diggam ak waaye juram lépp soxna jaara radiyallahu taala anha nëbbaloon na ko seexul xadiim ba sun borom nag feeñal ko ci cheikhul xadiim kon bi yàlla dogalee soxna jaara dem poroxaan poroxaan soxna jaara yàggu fa am na ñu ne ñetti weer am na ñu ne ñeenti weer amaana lu mën am mooy soxna si yàggul poroxaan waaye diir bam nek nekk poroxaan itam xam leen ne jamono joojee ndox daa jafe poroxaan lool ndax booba moo ngi boole sëriñ moor dongay bari na moo ngi jàngale moo ngi yar xam leen ne booba itam soxna jaara jëmm la joo xam ne moo daan rootal donga yi am ndox wax nañ ne diggante ba mu daan rootee ak diggante daara ji sëriñ Mor nekk ca Poroxaan wax nañ ne mat na un wax nañ ne soxna si daan na root donga yi mag yi njoolu bool bi di ko njoolu di ko njoolu ba paan bi jeex soxna si wëlbatikuwaat itam daal di delluwaat ca teen ba wëlbatikuwaat ngir duy ndox kon soxla so xamne ku manona a jaamu yàlla la ci burum kërëm ba wax nak ñi amna benn bëss serigne morante Sali mag ñi xamalon ko ne ko soxna si wa tenga noppal sa yaram wax nañ ni boba toggoon na ci jaamu yàlla lu bare bari mom soxna si waye xam leen ni tam toggoon na liggéeyi kër gi lu bare bari waye dañ leen man day dama gis alquran wax ni yàlla waxon na yenen tibali sallatu salaatu ne ko boo tëddite ba guddi nanga nga fekk guddi di jaamu yàlla di jooxe ay naafila ngir sa daraja mën a yokk soxna jaara foofee la tegoon tànkam kon mënees naa wax ni soxna jaara li doonoon royu kaayam boo xam ne jamono ji nekk ci lay roy moom soxna jaara mooy alxuraan xam ngeen ne fanweeri at ak ñett bariwut waaye lan moo ko may tey lii xew nga xam ne saa buñ tuddee soxna jaara mu mel ni tey la fi bàyyi ko radiyallahu taala anha kon biñ nekké poroxane mok dongay yi gurtu serel yi ñu am wax nañ ni bu doon jamono ji ñu ne moy glace wax nañ ni jamono tangor ba jamono ji ku dem salum poroxane xamne dafa tang wa imaginer kon jamono jojé nga xamne ci lañ nekk boba poroxane tojugul kon barab la bo xamne itam kon boba tangor wi yegi woon na dayoo waaye mboolem ñam fa nekkalan di ay soxna yo xamne ne dañoo ak Serigne Mor wax nañ ni bu guddi masa bu naaju masaana tang soxna jaara daan na def ay gurtu seral daan leen ko jox wax nañu itam jamonoy sedd soxna jaara daan na defar ay sëri dénk daan bàyyi ba guddi gi sori kenn ku nekk mu fëgg la ne la diw moo la ko jox diw moo la ko jox loolu bokk ni ci koy yi sell yi nga xam ne soxna jaara radiyallahu taala anha daan na ko def waaye xam leen ni itam bu jamonoy sedd masaana ñëw donga yi nga xam ne yàlla dogal na dañu néew doole soxna jaara daan na leen meeb dugal leen ci néegu boppam waaye itam daan jël moom soxna jaara ay sëri dénkam daan leen ko sange waaye imagineel kon ndox mam daan rooti ci diggante boo xam ne diggante kër geek daara ji mat na un kilomètre soxna jaara daan root ba xaajal dongo yi njoolu ko mu wëlbatiku wax nañ ne diggante boobee soxna si daan na ko baagante juróomi yoon waaye lan la ko yàlla mayee mooy képp ku dem poroxaan teen boobe soxna si daan roote wax nañ ni kenn ku nekk tey lii sa itte boo demee Poroxaan mooy dañ nga ci jukki am barkeelu daal di ko indi sa njaboot loolee day wane ne kon ba ndox jafee mu daan rootal donga yi daan leen jox ñuy naan daan leen ci jox ñuy sangu loolee tey yàlla fayee na ko teen boo xam ne saa boo demee màggal Poroxaan mag ña dañ koy rang di duy ay biteel di barkeelu ngir ndox moo moomay mu daan yët dongaam yu sell yoo yële xoolal tey yàlla dogal koddaay ba mu jafee koddaay ba mu jafee daan na ci mbooleem ñam nekkalan waaye mbooleem dongay Serigne Mor yi itam daan na leen ñawal ay yére daan leen ko jox moom soxna si waaye xam leen ni itam jamonoy sedd daan na wëq ay gaalam daan génn ay sëri dénkam daan ko sange ndongay Serigne Mor yi lan la ko yàlla faye tey ku dem poroxaan nit ñaa ngi jël ay koddaayu maam jaara di ko yóbbu ca barab ba kon ba koddaay jafee mu daan ko joxe yàlla faye na ko tey koddaay yii ñuy rang di ko jox di ko yóbbu ca barab ba foofee nag mbokk yi danaa ci wax intervenir bu gàtt bi yàlla dogalee loolu am képp kuy dem poroxaan danga war a jël la nga gën a baaxle la nga gën a bëgg di ko jox soxna si waaye waroo yël yére bu màggat waaye yére boo xam ne dem nga ba sol ko duy teggin sax barke Cheikhul Khadim nit di sol ab yére ba summi ko ne maa ngi koy yóbbu poroxaan di ko jox koddaay maam jaara ku ci xalaat li soxna jaara nëbbal see sekkari Serigne Touba ba tax tey ñu jariñu ci Cheikhul Khadim loolee war naa tax ngeen jël yére yi ngeen gën a fonk wala di xotti ay yére yu seer di ko yóbbu poroxaan waaye kenn war te jël am mbellit di ko yóbbu poroxaan di ko jox soxna si loolu du ay teggin loolu kenn ku ci nekk war nga ko bàyyi xel kon soxna jaara jëmm la joo xam ne itam fanweeri at ak ñett bariwul waaye xam leen ni itam yàlla may na ko tey barke boo xam ne sos 1866 euh, bi mu fi bàyyi ko ak léegi téeméeri at yi mat na waaye saa dundee saa tuddee soxna si la fi bàyyi ko radiyallahu taala anha waaye xam leen ni itam cheikhul xadim daa bëggoon soxna si amoon yéene lool ci soxna jaara waaye xool leen sëriñ am satu jaxate nee na sëriñ tubaa ma ko wax daa di ko ne am satu mu ne ko mbàkke mu ne ko bi ma bàyyi ko ndar jëm si ndakaaru dama jàpp kooru sunna waaye koor googee sëriñ tubaa ne ni ma ñëwee ndakaaru takusani suuf awma ma tok pour waj Cheikhul Khadim neena awma aw jekki-jekki ben tubaab woluma way neena bima na bi wolo Serigne Touba neena dama ànd ak mom way jëm naag man ci néeg bo xamne ne ba ak sobe ga ak takka ga foo ko takk weesu Serigne bi neena bima juwe néeg bi kérok biñ ma ba xé tànkum de jor gi ma tek rabbu gi da sar way taxul tànkum chamoñ bi yeex kon bi Serigne Touba duggé ci néeg bobé ci dakaro ñaari tanki Serigne Touba yëpp ci lasam la la sàmm dara jangi xelli fi wëru itam rabb yaa jam ci ginnaw Serigne Touba kon dara jangi ngi xelli waaye li tolloog bopam automatique la biñ ko sam. wax nañ ni rabb yaa ngi ci bop Cheikhul Khadim waye li buntu bi itam rabb yaa sar kon biñu ñu buntu bi nyari taxaw ci ay rabb ñaari tankam ci ay la sam waye ginnaw gi jam li tolloog Rabu yangi jam waye biñ dóoree buntu bi itam bunt bi ay ràbb lañ ko jëlee moo ngi jëm ci dënu Serigne Touba waaye Serigne Amsatu nee na Serigne Touba nee na ko Amsatu mu ne ko Mbakke mu ne ko soxna jaara sama waajur moo fa fekk. daan ne ma Ahmadu ma ne ko Mbakke mu ne ma maay sa seere keroog ba nga ganee jamono nga ganee jamono damaa dégg nga wax sab làmmeñ ne yàlla fasante na ma ak yow goo xam ne dinaa la jaamu lu ab jaam sa jaamu waaye danaa liggéey Seyduna Muhammad lu ko ab jaam mës sa liggéeyal. daa di ko ne ahmadou mu ne ko mbakke mu ne ko lii nga gis ci ay nattu lu tuuti la li sa kanam kon nag xel ba bàyyi xel na yaa fasante woon a kóllëre sa borom waaye foofee kon da nga cay déggee ni soxna jaara ku yàgga nëbbu secret la ndax diggante boobee ak diggante bii à 1895 bi ñu indee Serigne ndakaaru diggante boobee 43 la muy ñeent fukki at ak ñett soxna si wàcc na ci liggéey bañ jëlee Serigne Touba ndar andi ko ndakaaru ba dugal ko ci néeg ba soxna jaarat door ko fa fekk feeñu ko ñaaxaat ko dolliwaat ko kon da nga cey déggee ni soxna jaara ku mënoon a nëbbu secret la radiyallahu taala anha waaye xam le ni itam ba mu demee Gabon moom Seexul Xadiim kamb gëñ ko dugaloon ca suufu montagne sent marmaral kamb gi xamb ko ba kamb ga tàng marmaral ko jël jëmi Serigne Touba teg ko ci kamb gi nee na ba ma nee sarax ci biir kamb gi sëriñ Touba nee na ku ma sa am ngërëmal yàlla fekk nga ma ci kàmb gi Abdou Khadir moo fa njëkk a fekk nuyoog man jàmm santeeg man ma ne ko lu la indi mu ne ma xanaa dimbali la ma ne ko ba xam ndigalu sa borom nga am mu ne ma déedéet ma ne ko bàyyi leen maag yàlla moo leen gën a ñeewantu ëpp leen yërmati ci man Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi ko nettalee dane amul jënn jëmmu moo ne nikk ci wagge Serigne Touba xarab ko ne ko demal sab liggéey nee na ba mu ne gees soxna jaara buso waajuram la wax naa ba tey ne kon ñun murit yi Serigne Touba la ñuy yéem waaye sëriñ Touba itam soxna jaaratullahi waajuram moom la yéem radiyallahu taala anha dafa am bës ci njaareem dafa am bës ci njaareem Serigne Touba am lu muy bindiloo Seex ma Masamba yàlla dogal ma Masamba Mbàkke nekk ci ba mu yàgg loolee ñuy wax fër bët dikkal Seex Masamba waaye bi fëree bët dégg na kàddug doomu aadama goo xam ne kaddu gi kawe na lool waaye gennu kaddu la waaye bi sëriñ Tuubaa xëye woolu magi ummahaatu muridiina yi fere yi daan ne xanaa kenn déggu fi yooxu biig yooxu gu kawe ñu ne ko déedéet sëriñ ma sàmba ne ko mbàkke dégg naa démb day biig kaddug doomu aadama goo xam ne gennu kaddu la waaye doolaay waaye maanaam doolay kaddu gi jéggi na dayo sëñ Tuubaa ne ko ak saa ma sàmba daa di ko ne ma sàmba mu ne ko mbàkke daa ko ne ma sàmba mu ne ko mbàkke mu ne ko kaddu googe xam nga lu ko waral Cheikh Massamba ne ko Mbacke lu dul loo ma xamal xaw ma ko Serigne Touba ne ko Massamba mu ne ko Mbacke mu ne ko néew yañ denc fudul Touba néew yañu denc fudul Touba ñoom laa joxoon Serigne si réeloo ndigal mu leen may roñal doon ma leen yóbbul Touba waaye ba muy roñ di yóbbu Touba ay néew ci ndigalu Serigne Touba nee na di roñ di yóbbu di roñ di yóbbu néew ba mujj ci bàmmeelam ba ko Serigne si réeloo génnee ci bàmmeelam bi muy dal ci buntu xabro yi. sinkali ko goge la don yoxo Cheikh Massamba samba yoxo dari ko ni Mbacke Touba mat na Serigne Touba ne ko Massamba mu ne ko Mbacke Touba ëpp nako ko fi Cheikh ma samba tok bam yag xelam dem Serigne Touba ne ko sabaram ne ko Massamba mu ne ko Mbacke xana sa xel da dem ci soxna jaara mu ne ko Mbacke mu ne ko koku mag la samba waaye jamono jamono ju gàtt dana am bés bo xamne ko bokk kenn dari ko ne Massamba mu ne ko Mbacke mu ne ko su boba dëkku bopam lay am. waaye ma sàmba mu ne ko mbakke mu ne ko su boobaa képp ku dugg poroxaan man seexul xadiim danga ma fa fekk waaye laa boo duggee poroxaan man seexul xadiim danaa la fa fekk misaal mi ma ciy joxe sëriñ Amsatu Jaxate ba suwalu na kenn ci doomi sëriñ Tuubaa yi kooku ñëw ba tolloog penk jumaa ji daal di ko ni jiitu mu ma siyaare seexul xadiim ndaw li ñëw ci sëriñ Amsatu daal di ko ne ani diw mu ne ko mbakke nee na daa jaar ci barab bi di siyaare ko baax ki seem satu mooñ daal di ko ne dafa fekk sëñ Tuubaa de ndax léegi la fi Cheikhul Khadim jaar tàgguma jëm Poroxaan te boobaak léegi dëppul kon day wane ne dimension bi nga xam ne sëriñ Tuubaa amoon na ko ci soxna Jaaratulaahi Mariyaama Busu misaal mi ma ci joxewaat ba tey sëriñ Tuubaa mas naa toog njaarim daan ne xetuk soxna jaara damay xeeñ sëñ Tuubaa loolu la wax daan ne mag ñi xetuk soxna jaara damay xeeñ daan na sëriñ sayid Mbàkke xoolal ma fere yi ba xam kenn fanaanawu fee gan ñu bàyyi koo Saloum wax nañ ñu sëriñ sayid mbakke daw ci sàppe yi daan ne ko baax ki ne ko tedd ki ne suñ yaakaari téeg ëllëg nee na ba xam kenn fanaanawu fee gan ñu bàyyi koo Saloum wax nañ ñu ba sàppe yi daj gisul ay gan ñu bàyyi koo Saloum mu delluwaat ci seexul xadiim ne ko Mbàkke day fere yi kenn fanaanawu fee gan ñu bàyyi koo Saloum waaye sëriñ sayid bokku na ci mag ñi nga xamne ñetti téeméeri nday ak fuk ak ñett yi nekkon ci biir kër gu mag gi na ci mag ñako daan rot kon mom bu saani julli fajar ba nopi dawul dem kërëm waye da daan roté ci penc mi di duggal ci kër gi waye bi yalla dogalé muy rot seen kërëm taalub jang ba di tak mu ne waa tee ma koo taal dogal na ngalaw ko tal waye bi wéxé rek fekk fa gagne bayiko salum dañu de day kéemaan la lii maa koy njëkk xibaar yi Serigne Touba loolu la Serigne Seyid wax daa dina fere yi yéen day biñ jullee fajar rek sëriñ Touba moom may laaj moom may laaj loo fere yi ba xam kenn fanaanawu feeg gan ñu bàyyi ko poroxaan man ngeen ko wax ah, kay yàlla dogal na rakk bu njëkk bi bi Serigne Touba doon jiite ci jàkka ji manees ne woo ci woon a ànd waaye daa fekk lay bi jàpp ñu ba suñu yére tooy moo tax ñu ne buñ jugg ci jàkka ji Serigne Seyid daal ne lii day maa koy njëkk xibaar yi Serigne yàlla dogalee mu ñëw wax ko seexul xadiim sëriñ Tuubaa di ko ne seyit mu ne ko mbàkke mu ne ko nañ jàll si yàlla dogalee ñu ñëw toog ci kees nees tuuti am ku yëglu sëriñ Tuubaa daal ne seyit mu ko mbàkke mu ne ko xoolal ma kooku kan la sëriñ seyit génn xool daal di ko ne sëriñ Basiiru mbàkke waaye juru sëriñ Muntaxa borom taat beeg borom mbég mi mooy yëglu sëriñ Tuubaa daal di ko ni bu dee Basiiru daa ànd ak mbooloo na ko mbooloo mi nekk ci mbaar mi te moom mu ñëw ndax dafa teel bi sëriñ Basiiru egsee nees tuuti Serigne Touba génnee ci kees wax nañ ni keroog mag ñooñee nee nañ sëriñ Touba daal ne Seyid mu ne ko Mbàkke joxal ma fere yooyee boolub cere joojee wax nañ ne bool la boo xam ne bool bu fees dell ak cere la waaye ndawal gu bari ñoo ca nekk ñu tëjee bool ba wax nañ ni daggitug seng wax nañ ne bañ ci xéewaloo ba noppi Serigne Touba génnee ci kees gi moom Cheikhul Khadim yor tablette boo xam ne ñetti kaasa ci nekk daal ne ko Mbàkke mu ne ko joxal fere yooyu bàyyi ko Saalum wax nañ ni keroog Serigne Basiru la Serigne Touba jox ndigal daa di ko ni Basiru mu ne ko Mbàkke lal fere yooyu wax nañ ni Serigne Basiru daa laqar ci kaala gi kaala gi mu daan kaala woo moom Serigne Basiru daa di koy lal ci suuf daa di jël tabletu serin Touba ba daa di koy teg ci kaala gi wax nañ ni Serigne Basiru daa xelli ñeenti kaas Serigne Touba da ko joxal ñetti fere yooyee bàyyi ko Poroxaan Sering Basiiru ba mu xellee ñeenteelu kaas bi sëriñ Tuubaa daa téye kaas bi daa di ko ni Basiiru mu ne ko Mbàkke mu ne ko ndaxe moos Basiiru mu ne ko mu ne bani Israel, seen jaamu yàlla ya ak seen yiw ya buñ la ko wanoon walla mbootum kaas mi do attane weccob ñoom mbootum kaas mi naka salum, ñu ne ko naka Poroxaan ñu ne ko Mbàkke ma nga fa di néew ndox rek ak sori naka barabu soxna jaara ñu ne ko mbàkke barab ba daa fer ba tuñ ko serigne touba leen bi ngeen di ñew fu ngeen jaar ñu ne ko ñi ngi jaar ci garab ak sotor ak armel yi serigne touba ne nu ngeen def ak barabu soxna sa ñu ne ko da daa far ba tuñ ko waaye lan la serigne touba wax dañu leen waj leen ngeen delu ba ngeen démé ba garab ak sotor gogo na ngeen fa tok ba keppaaru takusan gi duggu serigne touba ngeen dox na ngeen nat fukki xassab fukki xassab yoyé fam yam sëriñ tubaa nee na na ngeen fa gas te xam ne foofay barabu soxla si wax nañ ne mag ña na leen ko sëriñ tubaa waxee ba ñu ñëwee ba gas ko lay firndeelu fee barab ba nee na leer gaa ngay sol jolli sar asamaan juróom-ñaar amul fu mu yem waaye leer gaa ngay jolli sar suuf juróom-ñaar amul fu mu yem keroog lañ defar barab ba yeesalaat ko ñëw ñaar njaareem keroog sëriñ tubaa bég na ci ñoom di leen bégal di leen teral di leen wax ni képp koo xam ne feñal nga barabu soxna jaara bo legge man Serigne Touba dana feñal sa mbir koku moy soxna jaaratullahi Mariama busso damay faral di wax ni dundut lu bari te fam newan ñako fa fekk itam bari wuñ ba di netali ak dundam kon manesna, mana yam fofu nak ci soxna si kon jigen ñep nañu roy ci mom góor ñi nañu roy ci mom fanweri at ak ñett lu dundu bari wul may faral di wax ni ñi dem poroxan ñu ci ñom ak soxna jaara kon lako ko may du ay at bari waaye la ko ko may mooy xam ne yàlla da koo sakk ngir mu jaamu ko jël ak dundam jox ko yàlla ba yàlla may ko tey garaatug jaaratulaahi may ko màggal goo xam ne ba dina sosoo ba tey génn jigéen képp lañ gis ci àdduna ku ñuy màggal mooy soxna jaara dëkkam bu sell bee sëriñ tubaa waxoon ni ku dugg fekk ma fa wa ilaa ku dugg man seexul xadiim danaa la fa fekk kon màggal gaa ngoog ak si nañ ci yàlla nañ ca dem ak jàmm te góor ñeeg jigéen ñi kenn ku nekk na nga defar sa jikko defar sa comportement ba bo meuna a demee meuna duy nek ci soxna si ba man ci jarignu ren di dewin radiyallahu taala anha yàlla nañu yalla fayal soxna jara waaye yàlla nañ fi yalla baye itam khalifa bu tedd bi nga xam ne du rek tax mu dëgmal soxna jara muy serigne Muntaxa magam ju bax ja à 1866 la dem poroxaan mom serigne Moustapha basirou def lu bare bari def fa ab te damay wax ne dund maanaam dëkk buy dundal barab buy dundal dëkk ci barabu soxna jaaratullaahi bu so lees ko ma sa gisee kon yàlla dogal na moo fa réagir lu bare bari sàkkal fa soxna jaara ay kër def fa résidence boo xam ne mbooleem ko Serigne Touba jur Serigne Moustapha Basirou defal na la fa apartement mboolem seex si toppoon Serigne Touba itam noonu def fa daara ju yaatu joo xam ne dani mboolem kuñ tuddee soxna jaara na fa ñëw laaju ñu la dund laaju la dara moo la yar la jàngal la ber la moom soxna jaara te mësta deñeej ànd kook rakkam ju baax ji di Cheikh Muntaxa ba yàlla dogal tey lépp Serigne Touba daje ci moom nee naa xalif bu tul nii ñoo ngi koy doogaam xalifa boo xam ne daa yilif poroxaan yilif njaarim yilif Touba loole day wane ne daa am yéene ju sëñ Muntaxa amoon yéene jooje la ko Serigne Touba fay kon yàlla na fi yàgg ci barkeb Cheikhul Khadim waaye itam ñuy ziyaare site bi nga xam ne mooy Fonkat TV di njiital Serigne Mamor moom Cheikh Mourtada kon ñoo ngi leen di ziar di leen baalu ak waaye di ziar itam techniciens yi waaye di ziar kenn itam ci jàmbar yi Serigne Saliou yi muy Serigne Mor kan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu وجاد وجه لمن تكريمه بانا في سار مولد من في البار ربانا فونكاب